commune bu daru Nahim fas yéene dalal gan gu am solo bàyyi ko réewum état la ngir fas yéene amal ab jataay waxtaan liñu xeex seq des na ci dikkat legi ak ki nga xantene modi maire bi di aladji Cheikh Bara Gueye ci lan mo wara tey jii jataay bi am diggante état li ak senegal liñu xeex ak ki nga xantene mo fi tew li ñu fas diglu Serigne Cheikh Bara Gueye. xana najem najem jàmm la najem liggey la najem mbégte la ndax euh, dafa am ay partenaires. yu nga xam ne itali lañu ñu nekk di jëflante ak yenn réew yi ak yenn communes yi ak ay entreprise mu mel ni bu fekkee lu yàlla tudd la bëgg nañ poste de santé bi fi nekk ñu soppali mu nekk euh, centre de santé bëgg nañ it usine dawlin bi fi nekk ñu soppi ko mu gën a dëppook jamono gën a yombal liggéeyam gën koo setal gën koo yaatal itam loolu moom la patron bi ñëwoon tey ji bi nekk nga xam ne moo jiite italien yi ñëwoon ñu war cee waxtaan ak maire man maire bi waxtaan ci daje ak conseil municipaux yi daje ak chef de village daje ak population yi waaye jëkke ci sëriñ bi itam loolu daal moo doon solo ndaje mi tey euh, mën nañu wax ni post de santé amélioré noonu lañ ko tuddee mu mel ni daal kër gu kërug fajukaay gu ndaw lan amoon ñu bëgg nag ñu am kërug fajukaay goo xam ni kër gu mag lay doon nga xam ne bu fekkee lu yàlla tudd la lépp lu nga xam ne xeeti jàngoro yii gën a not ci yi fi ëpp des na ko fi mën a fajo muy barab boo xam ne médecin kuy faj ay bëñ dana fa nekk foo xam ne kuy faj ay bët ak koo xam ne médecine générale lay doon ak wànqaas yëpp daal yi nga xam ne moo aju ci wàllu faju Euh, danañu tabax bâtiment bu yelloog bo foofa andi fa docteur yoo def fa matériel boo xam ne dina méngoog loola comme rajo comme ay scanner ak ay analyse fu ñu ko war a defee ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moom ngay dégg wala di ko gis ci hôpitaux yu mag yi euh, kon jafe-jafe amul waaye yokkute moo am wala boog yokkute la ñuy dox ngir mu am te am nañ ci yaakaar ndax yaakaar na ni ñoom bala ñu jóge jógee daañu signé protocole d'accord bi nga xam ne moo war a dox suñu diggante ak ñoom. kii di Moustapha Lo jiite tamit liggéey bi nga xamante ne tey moo waral jotaay bi am dikk na ci leeral li waral tey jii kat gan gi jóge état li ñëw teew fii lan moo ko sabab ñu déglu ci Moustapha Lo dikk na ci ay leeral. nee day tëb benn punt bi dem si ñaareel bi mooy que centre sanitaire bi parce que nee na toll que ni réew li koy tabax santé aussi bokk na si muy idée boo xam ni ah maire bi kat am na ko muy mbir mu rey boo xam ne si boppam moom da ko sax bett. waaw kon nag moom daf si taxaw rek pour jéem a ànd ak moom xool naka la ñu étudier mbir moomu jëm si ànd ak moom dugal si ñoom seeni loxo voilà muy voilà nee na projet bi wàllu exportation beeg lépp après incha ko gën a développé na ku ne xam ne ni àdduna bi fi mu toll nii fi mu toll surtout ak mondialisation bi ndaxte jamono fi mu toll dafa dox dafa àgg si foo xam ni ki nekk Tokyo ak ki nekk Rome ak ki nekk Dakar daanaka benn la euh, ba tax na lépp day am commencement mais mom dafa japp ni commencement bi aussi daf ci jiital li nga xamni moy formation professionnelle moy tagat tagat ndaw ñi ci walu métier. parce que tay même ba si mbay mi ci bopam xalé yi ci bopam war na leen ñu xam naka lañuy bayé ak it bu ñu bayee aussi que ah li nga xam mom moom la ñu aussi fu koy duggal lepp daal moy formation moy tagat bi té ci kaw lolu euh néna mom ak par rapport ak technique yi mu si am.

percorso di ristrutturazione e di ammodernamento sia della fabbrica di olio di arachidi che è comunque un prodotto molto richiesto in Europa e sia del centro quindi per me è concluso mhm. voilà si kaw loolu it laaj na aussi ñu jéem a moderniser tuuti li nga xam ne sax mooy usine yi nga xam ni ñoom à la transformation parce que tu jël na exemple li aussi que euh, entreprise mooy usine bi qui fii voilà moi fabrication bi nga aussi que moi usine bi nga xam ne transformer ngi transformé gerte gi di si génn ay junne nee na yëpp war def lu jëm ko moderniser te ñoom aussi pare nañu pour indi li nga xam vraiment ñu toll ko moi mooy seen moyen ak seen xam-xam pour jàpp si loolu waaw parce que. nañ fi nag dem seeti poste de santé bi nga xamante ne moo nekk fii ci commune bu Darou Nahim fekk fa soxna jaara ci liggéey bu am solo bi muy liggéey moo tamit am nañ fa aw waxtaan waaye tamit barab bi nga xam ne ñu koy tabax ngir fa seen fi indi commune bi moo tamit dem nañ fa neen ko jógo ak yéen barab yu am solo magasin bi nga xamante ne moo fi nekk ñu tabax ko fi ak mboolem barab yi nga xamante daal barab yi liggéeyukaay la euh, kii li nga xamante ne moo di gan ànd lañ ak maire ko leeral ko dëkk bi mooy Darou Nahim ci wàllu liggéey am solo taxaw nañ ko ci tax na wisit boobu nañu fës ànd nañ ko wiis ko guddi na lool nag wante tamit fenn fu ci nekk tamit seen tànk ngir xool li nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi ah,